on va vers une énième tripatouillage de notre constitution pour un président qui est venu en 2012 qui, période bo ne touche pas à ma constitution dans le cadre du M23 tripatouillage constitution Macky Sall mo koy dana ko quintuplé duñu ko gëm lan moy tax ñu nara a suñu constitution dindi premier ministre pour yok renforcer li nga xamni pouvoir du président de la république euh, de je veux dire da ngay da ngay sax c'est ahurissant euh, que le Sénégal neck à ce niveau en 2019 mais xam nga moy li may wax rek gis même kérok ay analyste nan Macky dafa ay dafa dafa vraiment tourner na leen il est stratège non ça c'est pas de la stratégie xam nga xeyna ñun ak nit ñi dañu bokkul fu ñuy politique moi je pense que politique du sadisme politique du du du du du nga emprisonner diw du nga radier diw du nga toroxal diw politique du du du ki gën am degré de sadisme mo dàq politique non c'est pas ça. ñaawtef comprendre nga euh, du tax temps bi mukk lo yok yok xam Macky Sall 5 ans lañ ko falon mu ñew yok ci 2 ans muy 7 ans mu ñewat forcer ñu benen mandat bo xamni ni limu teggul lepp ci yoon te tay mi ngi naan il faut ñu accélérer parce que 5 ans dafa gaaw mo lay wone ni le temps dafa gaaw nit avons rek la mën a liggéey mooy liggéey lu lay bàyyil way wu rafet ci sa ginnaaw du ay yaa gagné du ay forcing li ngay liggéey mooy ce que Mandela avait fait ce qu'on retient de lui c'est vérité et réconciliation ce qu'on retient de Gandhi c'est la paix c'est de l'hypocrisie mooy naafeq en wolof Khalifa Ababacar Sall est arrivé En ñuy 2014 ñun ensemble dañu dem teg programme bu tudd Dakar ville propre ville lumière tey bi may wax ak yow waroon na fekk Dakar dootul am presque un centimètre carré boo xam ne amul pavage parce que dañ tegoon projet pavage yëpp dans Dakar dañu pare woon pour stade yi nekk ci 19 communes yëpp am am am synthétique dañu pare woon pour Dakar leer naa ñi set qui a arrêté cela qui a arrêté euh, li ñu bëggoon def place de l'indépendance qui a arrêté l'emprunt obligataire qui a fait tout cela c'est Macky Sall tay moy li ma la wax legui le maire Khalifa ababakar Sall japp naa ni na sant yàlla ba peine de mort amul senegal parce que bu amone mom rek lañ koy dóor donc c'est de l'hypocrisie de bloquer li Dakar waayu voté won pour nit mu nar ko réaliser mu dem ba ñëpp teg seen bët muy lu baax ñu reconduire ko nga bloqué ko ñëw tey naan da nga bëgg a désenclaver Dakar da nga bëgg a désencombrer Dakar pour man c'est de l'hypocrisie pure dure. kan moo ñëw génne ville de Dakar mu dem plateau mu désencombre. mu désencombré ko carrément mu jël euh, les marchands ambulants di leen recaser kan moo jël Dakar commencé di ko pavé kan la Dakar waayu wóolu fal leen dañu di décentralisation le pouvoir central ne peut pas s'occuper de tout y a ben aspect boo xamante ñun les élus locaux ñun ñoo ko war def ne peut pas être bourre du bumi mooy dawal saret mooy serré boulon mooy def lépp une personne ne peut pas être partout à la fois y a des compétences décentralisées booy dem dans les démocraties démocratie moderne bo demee tay Paris amna yo xamni Macron di def Anne Hidalgo day taxaw Washington amna yo le maire de Washington daf ci am wax capitale bu mag bu Dakar nga jël maire bi mu doon nga bloqué ko pour des activités politiques ñu jubaat ay élections locales tu essaies de faire des slogans pour dire que da ngay désencombrer Dakar après sept ans de de de de de de gestion c'est même un aveu d'échec pour lui.